structuré. mais pas mal donc par rapport au au càkkat non dinaa si ñëw non ah. xaaral euh, dama wax l'idée c'est de ne pas. Euh, sous-estimer stigmatiser oui. ces jeunes yi nga xam ne ils se livre oui. euh, à ce à ce ils font ce travail là mais tamit beaucoup de jeunes yu dem virer ci càq-càq ils n'ont pas le choix non defal ndànk l'idée ils n'ont pas le choix da gis sax benn jeune bu ñëw ne la euh, jàppal ma ma jënd jakarta ndax ma am ci lu ma jàpp waaw dama lay leeral ah. idée bi ñett la idée bi ñett la nga analyser le phénomène des càq-càq sous l'angle économique li ma ci wax leer na si on n'avait pas une émergence d'une classe moyenne société de consommation bu élevée il n'y aurait jamais rek xaar rek bu ñuy dig waaw non non si ñëw xaar rek waaw yow loolu mooy premier élément bi te second élément bi wax na ko route bi bokk na ci élément bi ma wax la ne la euh, li nga xam ne mooy challenge bi actuellement mooy que nan la ñuy fexee ba structurer loolu tey xale bi nga xam ne mu ngi jël càq benn mais il commence un boo xam ne war na mën a dem ba nekk suba DHL donc il faut que état bi xool affaire bi bañ ko stigmatiser comme ñoom bañ ko xeeb bañ ko ñàkkal fayda mais na ko jël. au sérieux non non non la challenge bi la. c'était interdit à Dakar mais il faut me a nga bàyyi ma wax voilà il faut ñu bàyyi ma wax. a man damay wax oh. transport de personne. man je parle de livraison loolu laay wax d'abord. donc tey aujourd'hui challenge bi xam nga ne la comment structurer ce marché là ba ki am benn càq-càq nekk peut-être benn maîtrisard en marketing communication waroon mën a liggéey ci leen kooku naka lañ koy organiser renforcer ko ba ëllëg mu nekk d'échelle di def cag-cag à man la wax loolu yow yow attends non attendez attendez non non non a bul wax à la disposition de l'État a may wax bul wax lu ma wax lu ma waxul dama ne hmm. am nañu fii tey ay maîtrisards yoo xam ne tey ils sont aujourd'hui détenteurs d'une puissance boo xam financière boo xam ne mënoo comprendre te pourtant secteur bu ñu nekk c'était pas le secteur de prédilection bi nga xam ne moom la ñu loolu laa lay wax donc aujourd'hui la challenge ah non exemple na jax kercax lay jaay ak géej te ingénieur hydraulicien la doo dafa nag rek waaw dafa nag rek ingénieur hydraulicien la da nga bëggoon exemple exemple la noonu léegi ñëwal Hmm. moo wax la li mu lay wax donc aujourd'hui si c'est un secteur. c'est une économie may expliquer rek war de ketchup Sénégal Burkina. mais de la manière. de la manière est-ce xam nga ni ku fi andi fii càq-càq ku ko fi andi est-ce que le gars qui a andi càq-càq fii def na histoire am ci internet bi ñëpp gis nañ ko benn Sénégalais la boo xam ne France la nekkoon qu'est-ce qu'il a au départ dafa bëggoon livrer benn fleur au Sénégal mu woote am na fi moom si la ñëwee commencé gaañ bi créé chèque sax il a expliqué ça c'est un sénégalais et français nekkoon di fa liggéey. donc il faut non xam nga nag il faut. xam nga tamit il faut waaw mais il faut qu'on organise le débat. qu'est-ce que a fait pour question très bonne aujourd'hui dama uh-huh. challenge bi su ko bëggee génne aujourd'hui c'est comment faire maintenant pour structurer loolu te loolu ça ne commence pas par stigmatiser ce secteur-là.